mbokki internet yu Dakar ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci les minutes de l'info mbir mi ñi koy dooree mooy li nga xamante ni mooy Ndeye Fatou Ndiaye toll si ñaar fukki at ñaar ñu daal di koy teg loxo fële ca Maroc ginnaaw bi ñu gisee ni ay saagam dafa amoon drogue ki nga xamante ni moom moo dugaloon drogue boobu ñu ko doon wër Moussa Xambang naka la mbir mi demee bañ ko teg loxo loolu dinañ ci ñëw ci yaatal bi. 19 euh, personnes yi nga xamante ni démb dañ doon jàkkaarloog juge bi Mamadou Seck ba ñu jàkkaarloog juge bi lañ la ñuy waxante ak fan la mbir mi toll ndax bàyyi nañ leen wala bàyyiwuñ leen loolu également dinañ ci ñëw Serigne Bassirou Mbacké Proxaan démb bi muy jàkkaarloog ñi nga xamante ni moom mooy FRN euh, Front de Résistance Abdou Mbaye def na ay déclaration également moom tamit lan la wax professeur Cheikh Omar Diagne euh, di ku euh, xam-xamu ci jëm ci euh, li nga xamante ni moom mooy ay ay mbiru politique ak lu bare bari nga xamante ni daf koy def ci jàngat wax na ci Sénégal 7 lan la ci wax loolu mu bàkk ba jógee ñëw ci yaatal bi. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor de l'info alors ci ay simili yu néew ñu jox leen li gën a fës ci euh, bés bi di xibaar ngeen ci ànd ak Ousan waxoon nañ leen ko ci boppu xibaar yi ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou Ndiaye toll si ñaar fukki at ñaar ñu teg ay bés yële passé en le 24 février gisoon ni moom dafa amee woon drogue ci aéroport euh, Mohammed VI fële ca euh, Casablanca alors mbir mi naka la demee Ndeye Fatou dafa lancé woon benn message ay xaritam ay am du jàmmam ni moom dafay ñëw fi nga xamante ni moom mooy Sénégal def fi ñëw fi passé fi vacance am waaye li nga xamante ni moom mooy GP dafay def GP gratuite maanaam dafay indaale bagages yi gratuitement képp ku bëgg yóbbaale sa yóbbante fii ci euh, Sénégal ki nga xamante ni moom mooy musaa Moussa Xambang ci la profité sotee ci occasion boobu daal di jël ay dàll def ci drop drogue ba nag ba mu ko ci defee ndey faatu ba mu demee si aéroport bi polisu Maroc daal di koy teg loxo ba ñu ko tegee loxo mu patiné mbir mi xaw a jaaxal ñu baree bari si la consulat ak avocat am daal di koy jàppal tànk consulat bi sentir xale bu jigéen bi dañu ko tuumaal lii yëpp du si dara ci la consulat bi daal di woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy police du Sénégal ginnaaw euh, bi mu woowee police Sénégal que moom d'ailleurs tey lañ ko waroon àtte euh, mais li ko xaw a sauvé ci benn côté mooy ki nga xamante ni moom mooy avocat am def benn appel appel boobu ci benn côté sauvé na ko mais li ko gën a sauvé mooy consulat bi dafa jokkook euh, li nga xamante ni moom mooy police du Sénégal daal leen di wax information bi police du Sénégal daal di jóg daal di woo. freeru ndey faatu Ndiaye bi ñu woowee freeru euh, Ndeye Fatou Ndiaye ñu daal di euh, fexe ba jokkoo ki nga xamante ni moom moo woon recevoir drogue boobu kooku mu ngi mu ngi nekkoon Sénégal également alors bi mu nekkee Sénégal. bi ñu ko woowee moom dafa yàkkamti bi ñu ko waxee ni ko euh, sa bagage yi ñëw dafa yàkkamti ba sax daal di jiitu ki nga xamante ni moo ko waroon jébbal mbir moomu bi ñu dajee ñoom ñaar frère ndey Fatou Ndiaye bi daal di patiner bi mu patiner waa daw bi waa dawee ñaari fan lañ ci teg police Sénégal jàpp waa ji nga xamante ni moo waroon recevoir euh, drogue boobu. alors mu des ki nga xamante ni moom mooy cerveau bi mooy Moussa Moussa Mbengue ginnaaw bi consulat bi jëlee information yooyu daal di koy jébbal procureur Maroc procureur Maroc daal di gën a. Euh, am fu mu téye pour topp ki nga xamante ne moom mooy Moussa Xambang gën a euh, xoolaat bu baax a baax dossier bi ndax Ndeye Fatou mi ngi woon en garde à vue ci la ñuy dem yi ki nga xamante ni moom mooy Moussa Mbeng Mbeng daal di daw luye benn oto ci semaine boobu bi mu luye benn oto bàyyi fa passeport am waaye bi muy ñëw di delloo si oto bi ci la santé ni Facebook bi photo mi euh, yëpp dañ ko tas ci internet bi ci daal tegee oto bi benn côté daal di daw bi mu ko gaaree daw ñu dekk ñu koy wër di ko wër di ko wër di ko wër ba daal di koy jàpp ba bi ñu ko jàppee ba ay bés yi ñëw maanaam suba wala sax ginnaaw suba dafa war a jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou Ndiaye et que loolu mooy li nga xamante ni moom moo nar a sauver amaana Ndeye Fatou Ndiaye euh, consulat bu euh, bu Sénégal bu nekk Maroc di ñaaw lu mbir boobu ba sax ay bés yi la ñu génn defoon na benn réunion moom ak euh, GP yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu indi ay bagages fii ci Sénégal di leen alerter ci mbir yi nga xamante ni dafay faral di am fan yëpp maanaam dañuy faral di jël ay drogue di ko di ko jox ay innocent wala ay innocente sax ñu koy dugal seen saag yooyu di ko indaale Sénégal ba sax quatre personnes jàpp nañ leen quatre mois yële passé et que sax ci ay xibaar dégg nañ ni France am na sénégalais ñenn ci ay sénégalais yi yëngu ci wàllu GP ñenn ñi ñu ngi ciy rax ci seen liggéey di def jëf ju ñaaw boobu noonu waaye jamono jii ñuy wax ak yéen démb lañu ko jàpp ci ay guddi ci heure Sénégal ki nga xamante ni moom mooy musaa Moussa Xambang yoon teg na ko loxo suba mu war a jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou ñu koy ñaanal ah jàmm jàmmu jàmm topp si di xale boobu noonu nga xamante ni étudiante la gestion en management fële ca bu ñu fa jógee dañuy dem ci li nga xamante ni mooy démb ki nga xamante ni moom mooy juge Mamadou Seck doon na jàkkaarloog euh, ñi nga ni moom mooy 19 personnes ñu doon toppee ci yàq alal ju ñu moomul yàq euh, bagaasu jàmbur dugg ci manifestation boo xamante ni yoon daf koy tere. Euh, jël alalu jàmbur di ay mbir yu bari yoo xamante ni dañ leen ko doon toppee démb bi 11h jotee jàpp 30 minutes bi ñu doon jokkoo ak ñoom ñoom ñëpp lépp li nga xamante ni doon nañ leen ko tuumaal dañu ko dañu ko weddi ba kenn ki nga xamante ni mi ngi toll ci 40 ans ñu koy wax le pyromane. di ko woowee moom également weddi na mbir mi nga xamante ni dañ ko doon toppee dañu gisoon ne doon jël euh, li nga xamante ni moom mooy euh, briquet yor benn matt di faral di taal oto bu mu romb ci yoon bi waaye Euh, mercredi bi maanaam tey si bëccëg la seen i avocat di déposer liberté provisoire te ñu bare bari ñi nga am njort ni ay bés di ñëw ñoom dinañ leen bàyyi dinañ bàyyi aussi également ki nga xamante ni moom mooy Clédor Sène plutôt ak ki nga xamante ni euh, moom mooy Guy Marius Sagna ak asan Diouf ak ñeneen ñi si topp Serigne basiiru Mbacké Porokhane démb ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dafa seeti woon ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, opposition bi FRN Front de Résistance daal di leen jébbal juróom fukki million yi nga xamante ni euh, waxoon na ni dina jël euh, dina jël xaalis daal di koy jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci mbiri manifestation yu fi amoon ay bés yële ñu passé alors jox na leen xaalis boobu toll ci juróom fukki millions waaye paree ki nga xamante ni moom mooy Abdou Mbaye yéy na yàbbi ci euh, mbir mi ba daal di rafetlu xaalis boobu noonu bàyyi ba mu ci paree nee na li nga xamante ni moom mooy fukki ponk yi ñu bind daal di koy jébbal sëñ Mountakha Mbacké basiiru mooy président Macky Sall na fexe ba bu mu jéem a lijjanti troisième mandat na fexe euh, ba jàpp ñi nga xamante ni yoon daf leen euh, daf leen topp te na respecté li nga xamante ni moom mooy euh, calendrier électoral bi. ki nga xamante ni moom mooy Cheikh professeur Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne démb bi ko Sénégal 7 doon dalal ci émission bi nga xamante ni mi ngi tudd le rendez-vous Sénégal set alors wax na ci mbiri Ousmane Sonko nee na xaw na génne wu tuuti ci usmaan Sonko bi mu demee seeti euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, Ahmed Khalifa Niass ndax ginnaaw jokkalante kàddu yu bari yi xamante doon nañ ko faral di def ci weer yële passé waaye nag nee na respecté na li nga xamante ni moom moo moom la Ousmane Sonko def ndax nee na politique. mën nga ànd ak nit mais teewul sa sa système booy wax système ça ne veut nit yi ngay waxal mais li nga xamante ne dañ ko samp muy système loolu la Ousmane Sonko di wax et que mën na dem seeti ku ko neex mais l'essentiel ko moom li nga xamante ni moo tax sénégalais yi toppee ko loolu mu bañ ko wàcc dal na ci président Macky Sall nee na président Macky Sall pareegul benn yoon mi ngi sax ci yoonu mi ngi sax di gën a dëggal boppam saa su ne di wax li nga xamante ni mooy ootal mbiri loka euh, mbiri Ah, góor jigéen maanaam ñaari tur di xool lu ñu leen di légaliser ci yoon boobu la nekk fii ba 2026 moom ci professeur bi professeur bi ci kàddu moo wax loolu neen président Macky Sall ci logique boobu la nekk caaro yi postu caaro yi caaro yi géej suñu mbokk lébu yi ñu ngi leen di jaale ndax at bi metti na si ñoom bu baax a baax ndax génn àddina yu baree bari nga xamante ni dañu koy nemmeeku jëmale si ñoom ci ñu bari ci mool yi ginnaaw bu ñu demee en haute mer dugg ci biir géej gi dañu fiy faral di des démb njaboot yu euh, postu caaro yi tiis lañu la ñu nekkee li tax ndax benn waay ak doomam ak benn benn koo xam ne dafa doon ànd ak moom mais moom ak doomam dañoo génn àdduna ci mbir moom ki nga xamante ni dafa àndoon ak ñoom muy troisième personne bi kooku ba léegi nii ñu ngi koy wër euh, waa njabootu euh, pos waa njabootu caare bi yëpp ñu ngi leen di jaale seen doom yooyu alors fukki nit yi nga xamante ni également ba léegi ci mool yi dañu génn àddina yaa de cela mën na ay 4 mois ñoom seen njaboot tamit ñu ngi tiislu di ko tiislu ba léegi di naqaru mbir moom xamante ni ñoom ba ñuy dem fi nga xamante ni moom mooy Espagne seen euh, seen doom yi dañ fa dañ fa dañ fa dañ fa desoon ba kenn si ñoom ki nga xamante ni jëkkëram dafa bokkoon si ñu dem nee na moom leen rek moo ko metti si àddina bu jàkkaarloog doom du leen mën a wax ni leen seen baay euh, fii lañ ko suul muy leen di abonné seen si d'information bi di Dakar Net dara du la rëcc ci réew mi